plateau résultat en direct. bonjour monsieur Diouf Diouf sant ba. Euh, Diouf Thiam. Adja ah, Massa. Diouf nan la waay. yow doon xëy si tey. ah dama xëy si. dama xëy si tey ah doo saaf. ah waaw doo saaf de. nañ ci ah, dina baax de. sa bi ku ne jaar na fi de. waaye fayal gaz mais nan ko bàyyi ni pour l'instant rek yàlla ah. baax na yàlla ñu xool fooy mujje yàlla laate léegi yi nga xam ne yéen ñuy seetaan salaam fii nga xam ne mooy cuisine bi nekk ci ministère de l'intérieur waaw tey ñu ñëwaat fas yéene leen jox résultat yi nga xam ne mooy résultat définitif ci élection législative yi dañuy invité candidat bu nekk nga ñëw toog ak cuisinier su fekkee da ay point ñu bindal la ko waaw fekkee ay zéro nga am ñu def ko ay nen daan la koy baxalal wala ñu omletal la ko comme ni ñu ko daan defee ak ñeneen candidat yi Maître El Hadj Diouf ñu ngi lay nuyu nga nuyoo ba pare def li nga war def bu dee ñaan la wala leneen ñu doog a commencé maa ngi sa nuyu waa Sénégal di gërëm ñëpp di la sant damay mhm. yow moom tey mënoon nga bañ a xëy si parce que man ak El Hadj Diouf député du peuple ñëpp xam nga ne man peuple bi tànn nañ ma ñaari yoon ren nag ma ko tollanti ba pare ren ren dama ànd ak coalition leeral tey yëpp dina leer du man rek maay dem man ak keneen keneen keneen keneen bu soobee yàlla kon taal loxo yi ñaan sa barke yàlla defal jàmm saa fee sa gaz bi jaru bi yàlla baax na yàlla baax na da ngaa bëgg a leeral rek bon maintenant ñu commencé bismillah région de Dakar bismillah Benno Bokk Yaakaar waaw 93 570 voix ngi ko taxawu Sénégal 90 255 voix waaw ah, la coalition gagnante. waaw ah. soixante quatorze mille quatre cent quarante quatre voix. Eh. pur. waaw ah. vingt sept mille six cent cinquante voix. waaw ah. El Hadj Diouf sept cent voix. Eh. Eh, li dara li dara li commencement rek la li dara jarul tàccu saa fee sa gaz bi. non xam nga ren moom dafa campagne no am problème yàlla baax na. région de Kaolack. waaw Benno Bokk Yaakaar. waaw soixante quatorze mille Benno Bokk Yaakaar vingt cinq mille cinquante. ci prix man ko taxawu Sénégal. Ah. vingt mille cent sept. c'est bien. la coalition gagnante dix huit mille. Ndokale. PUR douze mille deux cent vingt deux. sensation. El Hadj Diouf quatre cent. ah. fay sa gaz bi. man xam ne da campagne. région de Thiès. waaw Benno Bokk Yaakaar quatre vingt trois mille quatre cent voix. waaye ci prix. man ko taxawu Sénégal soixante treize mille cinq cent voix. très la coalition gagnante 30 400 voix. donc les. PUR 28 000 voix. El Hadj Diouf dans les sept six bureaux de vote a obtenu 6-0. nga ni. de vote yi yi nekk ci biir centre bi. Eh, eh. El Hadj Diouf 6 la ci am. Eh, Diouf xoolal baax na xoolal baax na yow nga ne. région de Thiès. je reprends. Benno Bokk Yaakaar loolu intéressé wu ma man commencé ci man directement. El Hadj Diouf. waaw dans le centre de vote. waaw de a obtenu dans de vote. waaw zéro ce qui fait la garaaw ay eh, eh, eh, li nga la je vous laisse avec li nga campagne lépp. ñaata bureau la. six. six zéro kon six nen la. il faut lui demander ba xam baxal la wala. ma def ci ma def ci. saabal saabal xaaral bu ne yow waaye man dama lekk gi naan saabal. waaw dama xaar muy saabal mu ne la ne région de Diourbel Benno Bokk Yaakaar voix Manko Taxawu Sénégal voix la coalition gagnante voix PUR voix El Hadj dans les sept bureaux de vote a obtenu 7-0. ah. ça va. et je précise que c'est la dans la région de Diourbel. at li nga campagne lépp. at li nga campagne lépp yow. ça va eh dama ne. eh say nen. xoolal ma say nen de. du ma sa borom nen de. dama ne dama ne eh, du ma euh, ginaar du ma euh, lawaas. Euh, eh, ay aliment. yow yaa nen ci bureau de vote yi. Eh, mais say nen la. monsieur le buñ ne sax dafa nen. waaw ay nen la am. mais nag ñaata nen la am ñaata nen la am. am na sept nen. am nga juróom waaw yoo xam ne moo ko juróom ñaari nen. waaw sept waay ku la saab euh, toj naa ko ba pare de. toj naa ko ba noppi. damay damay baax laa bëgg léegi ku la saab la dama laaj. non recours. damay moom recours waaw lay léegi dañuy euh, le cuisinier s'il vous plaît. avant ngay toj nen bi dama koy laaj ba pare. que fi mu ne nii échappatoire wut. funtul numéro ci la wut. voilà te juróom ñaari nen ko war a tojal. sarax la sarax la demal demal dina baax demal dina baax na. région de Saint-Louis. waaw. Benno Bokk Yaakaar 28 Manko Taxawu Sénégal 17 la coalition gagnante 16 404 voix. waaw PUR 10 505 voix. El Hadj Diouf 890 voix. nee eh, eh, eh, El Hadj Diouf 886 voix. Kébé fii nga yem personnage. dana baax dana baax man nag caale. cawa kaa am je vous rappelle que El Hadj Diouf est natif de Kaolack. waaw fi laa juddoo. dans la région de Kaolack. waaw. Benno Bokk Yaakaar 25 050 voix. la coalition gagnante 20 107 voix. Manko Taxawu Sénégal 18 000 voix. waaw. PUR 12 222 voix. El dans les 9 de vote du centre a obtenu 9-0. Diouf c'est pas moi Diouf da ngay omelette wala da ngay baxal yoo laay baxal yoo laay omelette man mënoo maa baxal dama ne yoo laay baxal yoo laay omelette eh, sëñ nga baal ma ñaata bureau de vote la c'est neuf bureau de vote dans le centre neuf bureau la obtenu neuf zéro ah, neuf zéro kala nga juddoo mais at li nga campagne lépp ci àddina yow bu la jël loolu nanal li nga campagne lépp nanal déet du samay nan kat yow laay tojal waaw waaw mais say zéro na ni toj say nen na ni toj waaw ah, loolu bëgg léegi nag baax na demal yàlla na yow sa sa kabaar région de Kaffrine Benno Bokk Yaakaar 15502 voix la coalition gagnante 13001 voix naa génn rek naa génn Manko Taxawu Sénégal 10111 voix PUR 9300 voix El Hadj Diouf a obtenu 9490 voix ay eh, eh, waay waaye du ma la waxoon waaye na ca waay. dana baax dana baax dama ne dama ne mais bu la ma jëloon bu la ma jëloon bu la ma jëloon bu la ma jëloon. dans la région de Sédhiou. dana baax Sédhiou Benno Bokk Yaakaar. soxul ñaar am benn 601 voix. soxul ñaar am benn. la coalition gagnante 12 904 voix. ñoo xam maa ngi ko taxawu Sénégal. 9 333 voix. waaw. PUR 7544 voix El Hadj Diouf une voix. Oh. région de Matam ba Benno Bokk Yaakaar 17308 voix. waaw maa ngi ko taxaw Sénégal 7999 voix la coalition gagnante 5443 voix. PUR 2398 voix El Hadj Diouf dans les 14 bureaux de vote. du centre a obtenu 14 0. et. waaye eh, waa li la la waa li la la yow. Diouf waaw Diouf da ngay baxal wala da ngay omelette. waaye dama am naatal waaye yow li la la yow. c'est le PV c'est pas moi. je ne fais juste. ñaata euh, ñaata zéro la yow. bu ko defee 14 14 zéro at li nga campagne lépp. kon 14 nan ngay sànni. incha allahu rabbi. daanaka demal man naa jàll rek xanaa mu tudd woon ñaar waa naam benn. région de Kédougou. waaw. Benno Bokk Yaakaar 20 405 voix. waaw la coalition gagnante 12 599 voix. waaw Manko Taxawu Sénégal 8 557 voix. dina a obtenu 5 449 voix. waay El Hadj Diouf a obtenu 799 000 voix. waay waay waay waay waay waay waay waay Yarbaale région de Kolda région de Kolda waaw région de Kolda Benno Bokk Yaakaar dix-neuf de Kolda Benno Bokk Yaakaar dix-neuf mille neuf cent trente-cinq fois Manko Taxawu Sénégal quinze mille trente-cinq fois la coalition gagnante douze mille neuf cent neuf euh, pur sept mille quatre euh, sept cent mille quatre trente-sept fois El Hadj Diouf dans les vingt sept bureaux de vote a obtenu vingt sept zéro. et. voilà loolu mooy tablette bi. je vais enchaîner avec le dernier bureau de vote dernier bureau de vote bi nekk Tambacounda laay terminer. 27 0 la 27 0 27. 27 nen. mais benn bureau de vote bi moo des. il la ma ñeenti tablette yow. El Hadj Diouf bureau de vote si amee benn point mun na am benn député mais bu ci amul benn point. du am benn dëkk. yàlla. muy bureau de vote bi nekk Tambacounda ñu dem ci. waaye yàlla waaye. doomu bal Benno Bokk Yaakaar 18 407 voix la coalition gagnante 13 883 voix Manko Taxawu Sénégal 10 557 voix PUR 5 567 voix El Hadj Diouf a obtenu en définitif. oui. assemblée ah damay dem damay dem waaye ma ne waaye ma ne boobu dëgg la waaye damay dem damay dem. obtenu en définitif. yaay yaay. zéro. c'était les résultats définitifs en présence de monsieur El Hadj Diouf nous sommes vraiment désolés mais vous ne serez pas député dans cette treizième législature monsieur Diouf à la prochaine incha allah. Diouf baxal baxalal antaan naa ci baxal bi da ngay lekk ci baxal baxal gi antaan naa say nen bi ñor. at li nga campagne lépp ci àddina nit ci li mbedd mi wee wee wee wee nekkat bett nga ma trop ay eh, xoolal xoolal du ma sa morom de yaa ngi pusal nii Macky Sall ma lay def nii defu ko yaa ko def sa bilaay len nii du ma rek man kese ndax la 15 millions mu jaay ma nen 15 millions man député la boobu ma di courage nen samay nen dafal daal samay nen teel ni sama leen Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf